Assalamu asalaamaaleykum euh, mbokku téléspectateur euh, Ndiamé TV tay ñu ngi fi université fas yéene fi def euh, seen émission daara yi émission. waaye di exception si étudiants yi. waaw étudiants yi ñi ci si présenté kenn ku ñu wax Mame Cheikh Thioune Mame Cheikh. ñu ngi ziar bu baax te yeesalaat suñu njëbal ci Cheikh Moussa sa di nuyu wa Ndiamé TV ñi nga xamante ak sa ñu jox opportunité bi ñu mëna exprimer wu ci li nga xamante ak sa moom lañ dëgmal. c'est ça sant bu waa euh, si émission bi tamit am na euh, ku ñu wax euh, Baye Lamine Diame di kenn si mbokk étudiant fii si université Cheikh Anta Diop Lamine Diame ñu ngi leen di. ñu ngi bu baax ñu ngi màggal bëggee tamit di am mbégte bu baax tawfeex ci maanaam bokk ci émission bi nga xam ne am na solo. ki ñuy wax usmaan caam si na Ousmane Thiam ñu ngi lay nuyu di bàyyi nga nuyu waa téléspectateur Ndiame waaye ñu ngi lay fay te amul tasu maanaam ban ban danger la am la nekk si euh, si la nekk moo lay parcourir maam sa kuddi. waaw ñu ngi sant bu baax ci laaj bi ñu wax ni maanaam ki nga xamante ni dundul tasawuf ak ci ban danger la nekk waaw li wax ni rek dund tasawuf soo la ñu ko laajee dañuy delluwaat ci góor euh, yàlla boobu nga xamante ni dañ ko ko laajoo ne ko dund tasawuf ndax farata la wala sunna la suma ma juumul Cheikh la ne leen du farata lu tax dafa mel ni ki feebar léegi ñu ne ko faju maanaam farata la wala du farata xaka sa laaj bi sax loolu la dañ ko ne farata la wala du farata ne leen leen delloo ci ki nga xamante ne dafa feebar su fekkee faju ci faju ci moom ñu laaj ko ndax farata la wala du farata léegi moom mooy xool su fekkee ni jàpp na ni feebar bi su ko mënee saafara dina wér ba doxi soxlaam xaka sa loolee na ko matal mu nekk farata ci moom fekkee tamit jàppewu ko farata yi tamit na baña faju toog xaar waaw kon nak tasawuf ak sa taxaway bobu la am ci lolu nak ñun dañ ci wax ni farata lay doon lutax muy nek farata ndax muy li nga xamanteni kep ko xamanteni jaaru fa ni wara war yalla ak sa du soti ndax ba yalla waxe ni tarifu ni xablaan taabu duni fa in lam kayfa xam ma sok may jaamu ma nga may jaamoo maanaam dund tasawuf loolu lay def ci yow képp koo xamante ni dund nag tasawuf xam yàlla lay def ci yow àgg ci yàlla lay def ci yow jeex tàkk lay def ci yow fépp foo wëlbatiku janoog jëmmi yàlla ji ba tax na di nga mën a jaamu yàlla ci lépp fépp foo mën a nekk ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuni la wax sàkkuma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma lu dul ngir ñu jaamu la wax kon lépp looy def ba université bii ñi nga xamante ni fi lañ nekk dugg ci envie di jàngi di dem di bind suñu mémoire di def suñu exercice lu mën a nekk tey ji jaamu yàlla nekk si dugub bu ñuy dugg restaurant di lekk di di lekk ci restaurant yi naka saa jaamu yàlla war a nekk si ñun waaw ndax nee na sàkkuñu lu dul ngir ñu jaamu ko kon tëdd nelaw sax warta am naka wuti leneen lekk sax warta am lépp jaamu yàlla war a doon léegi su fekkee dañoo jàpp ne jaamu yàlla moom mooy sa gëkk silli siggi maanaam di jullee ko woor a joxe ak asaka aj màkka yooyu dañ ko tënk ci ay waxtu ak ay weer kon loolu xakasaa matuk jaamu yàlla kon li mat jaamu yàlla mooy jaam mooy li nga xamante ni nit ki su fekkee def ca ne du jeex. maam naka nga mën a defee différence bi méngale wooteeb Cheikh ak ñeen ñu ko jiitu ndax tumaal yi bari na si xam ne nii maanaam xamuñu lu mu demee waaw léegi wooteeb Cheikh Moussa maam Cheikh lan la indi si jamono ak Cheikh Moussa ban saabu nit la woon si jamono. ak sa mu mel nii li ciy bàyyi la Lamine wax sànq sax ak sa leeral na lu bari ndax euh, tuuma moom mënta ñàkk ci bépp mbooloo boo xam ne dafa jóg ngir dem xakasa ji jëm ci kanam dooma amul ku mu doon dul dal waaye ku ci melni Cheikh Moussa dafa wote ci keur Serigne Touba lo xamanteni ni néew na loolu ku ko laal waaw ndax xam-xamu xam yalla yegg ci yalla xakasa bi mu koy wax fekk na mu ranke lol ndax ba jamono joju fekk na ni ñi ngi julli ñi ngi wor ñi ngi nat asaka ñi ngi aj maaka ñi ngi def lepp mo mu ñew ne julli wor nat asaka len du si jaamu yalla mu jaaxal ñepp motax ñu ne amna sax ño xam dañu ne ñu diñ ay julit loolu ci gëna reuy waye dafa amul lu lu doon wone ndax jaamu yàlla amna lo loo su fekke nit ki amuko lépp lu mu mën def xàq sa du mëna nek jaamu yàlla nit ki su yëgut yàlla su jullee jaamoo gud yàlla ndax amna ko koo mi ngi julli te xol bi mi ngi fess dell reuy rëy ndax yàlla reuy jaamu yàlla ci mo amna ko koo su julli mi ngi gistal am na koo xam ne saraxe bi muy saraxe ak asa daf ci bëgg gars yi xam ne ah kii day tabe la ndax loolu jaamu yàlla la ci moom kon dëgg-dëgg jaamu yàlla nekkul loo xamante ne ay yëngu la waaye tawxiid la xol bu fees dell la ak yàlla su feesee dell ak yàlla nag lépp loo def muy jaamu yàlla nga julli mu baax nga woor mu baax nga joxe asaka mu baax nga aj maaka mu baax nga dem jàngi mu baax nga dem liggéey mu baax lépp loo def jaamu yàlla lay doon ci yow parce que nee fu nekk xakasa waaye loolee taxul suñu suñu woote gi nga xamante ni mooy woote Cheikh Moussa dellu ginnaaw saa su nekk day gën di dem moom wàcc na liggéey depuis 94 ñun ñii gisuñu ko ñun bu ñu soobee ci yoon bi sax yàggut te ak saa ñi nga xamante ni ñoo aju woon ci ñoom ñoom ñoo ñu jox li nga xamante ni moom la ñuy waxee ñun mësuñu ko teg bët kon li nga xamante ni moom la woote mi ngi dox mi ngi jëm kanam te képp ku yaakaar ni mën na ci jéem lenn ba mu mel ni woote guy fay la ak saa mi ngi nax boppam waaw. ndaxte woote wu maanaam ñun nekkuñu sax dañuy revendiquer ni ay murit lañu wala ay tijaan wala déedéet ñun xakkasaa ay jaamab yàlla lañu waxta si moom bi xablillaay jamian wala tafarraqu yàlla dafa ne na ngeen ñooy ci benn bunte bu leen tàqalikoo ndax da nga mën a nekk tijaan ba génn ci maanaam ci ci jullit da mën a nekk murit ba génn ci jullit da mën a nekk ti eh, laayaan ba génn ci jullit kon ñu ñëpp ay jullit su suñuy kilifa yi nag kenn ku ci nekk dafa sax ci jaamu yàlla ba ñu woo wooyee la benn tur koo xamante ni képp ku aju sa ginnaaw rek xakasa ñu wooyee la noonu mu mel ni la illallah moom ci doy liggéeyu mbay moom ci doy xakasa kon nag suñu kilifa mooy Cheikh Moussa Cheikh Moussa nag kilifaam mooy Serigne Touba akasa silsila bi mu ngi noonu. akasa kon ñu ngi lay jël bu baax defe naa euh, euh, réponse bi am na solo bu baax waaw ji euh, jàll si soxna soxna Daba soxna Daba li ñu laaj mooy maanaam yow en tant que soxna nak ngay dundee xam-xam bi bii kër Cheikh Moussa ak ak ak ñoo xam ne nii parce que am na avant nga dugg si kër Cheikh Moussa am na am na foo nekkoon bënn si yenn yoo xam ni maanaam koo xam ne nekk ci kër bi xamu ko te yow nga xam ko léegi say morom ñoo xam ne nekkuñ si biir xam-xam bi léegi naka lan nga leen wax parce am na ñoo xam ne bu la nga nga xaw a laxasaayu nit ñu leen jaaxal lool. kon tey jii ñun tamit noonu la ñuy doxalee tey jii boo demee ba dugg ci leer bi boo retourné waatee ñi nga doon xama ñi nga xamante ne ñoom nga doon àndal wala say parents dañ lay jàppee ab dof boo xamante ne boo leen di wax sax ñoom dañ lay classé mais du tere nag saa su ne jamono ji ne boo toogee nga leen di fàttali nga leen di fàttaliwaat li nga xamante ne xakasa moo dugg sa diggante ak ñoom li nga xamante ne moom nga toppee sa sëriñ ba àgg fi ndax tey jii boo jógee topp sa sëriñ daa am loo xamante ne moom nga ko yaakaaree maanaam mooy xam-xamu tasawuf ndax diggante sëriñ ak taalibe mooy ki nga xamante ne dafa xam ak xamul kon yow mi nga xamante ne xamuloo dem ci sëriñ ba ba mu xamal loo xamante ne xamuloo ko woon maanaam boo fa jógee war nga dem wax ñi nga xamante ne xakasaa ñoom nga nekkaloon xamal leen ne man yor naa gënal boo xamante ne xakasaa mooy seen njëriñ fii ak fu ngeen jëm ay laxa mooy ci caabi ak jàng Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ne mu ne baat boobu képp koo xamante ne yaa ngi koy tudd sa baat yaa ngi koy tudd sa sa làmmiñ maanaam xam ko sa xel nangu ko sa xol mu ne àjjana mooy sa kër kon baat boobu mooy ngënal bi nga xamante ne moo lay jëriñ àdduna ak alaaxira kon leer boobu rek mooy jëriñ jàmm waaye maanaam julli beeg ool beeg natt asaka bi loolu ay ponk islam la waaye nekkul loo xamante ne moo lay jëriñ ak alaaxira ndax tey jii yàlla ba mu wàccee jaam yi ne ma wa maa xalaqatul jinne wal insa illaa dundu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu waaye dafa am condition yi ñu ko teg nag taarifuuni am lam an taabuduuni fa in lam yaarifuuni fa kayfa taabuduuni da ngeen ma xam ba pare soog ma mun a jàmm waaye su ngeen ma xamulee ana naka ngeen may jàmm kon gënal boobu ci leer boobu la la làqu maanaam xam-xam-xam yàlla loolu rek mooy mooy jëriñ jàng loolu mooy gënal bi nga xamante ne xakasa moom la ñuy sax moom la ñu jëlee ci maanaam kër Seex Isaa si sa njàng koy xamal nag mboolem képp koo xamante ne ndaw nga muy yaay faal muy baay faal képp koo xamante ne àq ji nga ko daal loolu daal la lay xamal xam-xam boobu moom la lay. Ah, leer na man kon ñi euh, jàll tamit si si si bi di ko laaj maanaam est que est que ndax est-ce que c'est la personne de connecter est-ce xam yàlla ndax boo ne xam yàlla ñu bëgg dañu ñëw jublu si téere yi dawali téere yi xool liir ñoo commencé julli euh, di woo tax dafa lu question baax baax day bu baax question bi nga posé dafa nekk question boo xam ne dafa fondamental tey ci diine islam muy maanaam tey ndax foofu mun nañ ne far ndax farata la ndax jaam ñi pour jaam ñi xam yàlla loolu moom mën nañ ne ak saa mënta ñàkk alaa kulli xam yàlla. ala kulli halin dafa wara nek ci jambi ndax niñ ko waxe sank rek mo lay gënne ci lepp lu du deug tegtal la dëgg defe naa mbokki taalibe yi nga xamne ño waxtan waxtaan lan lañ ko te boobu noonu muy mam Cheikh tun ak soxna Daba leeral nañ ci lu ama ama am solo dundu manam sa xam yalla day melni ko xamne dafa nek ci lëndëm bo xamne leppang ci bir waye amul torche bu ko nital amul jant bu ko nital xam nga dañu ne Yalla daf ñoo laaj ñuy setantal mbir yi di xool maanaam tey xaalam bi muy doxé rek ndax lepp lay tegtaloo yalla imagine tay jant ñakoon ci adina ndax dund dina possible tay bu jant ñakoon ci adina àddina du possible da bonam borom xamé dañu misalo jant xam-xam te xam-xam bi nga xamné jant la bu accès lépp leer benn xam-xam la muy maarifatu billaahi kon ala kulli alin mënta ñàkk ci dunduk doomi aadama ndax moo koy leeral fan lay teg tànkam mooy tax mu génn ci li nga xam ne moom mooy bokkaale boo demee tey ci enceinte bi nga xam ne fi lañ nekk mooy université boo demee faculté de droit dañ la naan nul n'est censé ignorer loi maanaam tey loi bi moom amul kenn koo xam ne nekk nga citoyen war koo maanaam ignorer waye tamit tay amul kenn kuy taxaw na jaamu yalla nga ba pare nak mamé da ngay réeré sa borom warta mëna nek motax hadith euh, qudsi bi nga xamné soxna daba wax na ko dafa am solo bo xolé islam mom moy fondement islam Dini islam lepp day teunkuat ci lolu moy ta'rifu ni xamna leen an taabudu fa illam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni yalla mo na xam ma bala ngeen ma jaamu su ngeen ma reere du ngeen ma meuna jaamu kon moy li nga xamne mom moy ñeuk motax ben borom xam-xam ben wax naan le soufisme cœur de l'islam xam-xamu maarifatu billaahi ak xam-xamu xam yàlla moom mooy xolu diine islaam su ci ñàkkee rek dara nekkatu fa day mel ni jëmm joo xam ne amul ruu xam nga jëmm joo xam ne amul ruu moom du mën a sori fan lay mujjee mooy décomposition rek moo ciy nekk waaye nag bu tàbbee ci moom rek bépp faculté day ubbeeku ci moom keroog la sens yi ubbeeku lépp day keroog lay ko keroog lay dox noonu tamit nga xam ne maarifa bu diggee ci doomi aadama dafa am loo xamante ne bii mu ngi ci doomi aadama dafa tëju leeram yëpp ak kasaay kon mënut a feeñ fii leeg maarifa wàccul ci moom kon nit ki mënut a xam sax boppam ndikete fii leeg xamut yàlla ndax yonent bañ ko laajee lan mooy àgg ci yàlla mu ne mooy xam sa bopp rek képp ko xam sa bopp dëgg dëgg dëgg di xam sa borom waaye ku sa bopp dëgg dëgg da ngay sa borom waaye nag lan mooy xam yàlla tey question la boo xam ne tey nag jàmm ñu bëri war nañ cee ñëw ndax lan ni nga ko waxee léegi ci question bi rek am na ñoo xam ne li ñu jàppee xam yàlla mooy ah su ma jàngee tey téere bi am ci yenn saar rek xam naa yàlla suma mëne julli rek xamna yalla waye lool non noonu tay dañ koy teunkat ci sharia ta mama euh, noori dafa am lu wax legui lu am solo dafa na Cheikh Moussa bamu ñu dafa takale sharia ak islam te tay jaam ñi koo ci lat lan moy sharia mu ne sharia kat moy nga se ashhadu an la ilaha illallah indi la julli koor nata asaka dem makka loolu indi na la moy sharia nga laajaat ko lan moy islam mu bu laa indi la la même chose or qu'il y a une différence différence bobu non nak mom la cheikh Moussa ñëw indi xam le manam xaatika ak manam tasawuf bokkul ak sharia islam kon islam moy xam yalla islam moy ak sa kon wuti li nga xamantene bi mom moy mooy yalla ji nga xamne mom moy lepp xam nga tay mo waral tay ci wonu bari ndax cheikh Moussa bam bëggee sharia ak islam dafa ñëw jaar ci digg bi ndax dafa ne manam man yalla la di woné ta tasawuf rek moy woné tay yalla ndax tasawuf moy ki nga xamne day dem di dem di dem ci yalla ba dootul gis mu yalla nga xam ne lépp day jeex ci moom lenn rek mooy des muy jëm yàlla ci ba mu àggee ci màqaama yooyu nag ñëw xool jamonoom gis ne tumuranke na lool la Sëriñ Tuubaa doon wax naan fa jilu za zamani is jaaluhu ilmu tasuuf wax fa xayra ahmaloo mas gi ëpp tey ci jamono réer nañu xam-xamu tasuuf ba pare nag ñu neenal ko ñu ne du dara waaye nag nee na ndem réer nañ ne xam-xam boobu noonu tey mooy yoon bu yóbbu jaam ñi ci yàlla li qadaratallaahi mooy yóbbu yóbbu jaam ñi ci péeb yàlla ba nee na kon faqaa boo ji laa ñoom ñëpp dañuy perte ëllëg gise ko kon bu fekkee da ngaa téye charia ba tax nga mën a weddi xam yàlla nee na ko rek yow ci waay perte yi ngay bokk ëllëg moo tax ñaari maqaam yi ala kulli dañ la see woo yow jaam bi nga xam ne yaa am géej géeju géeju xaq charia dañ laa woo ci nga sàkku ji nag ci maanaam yi sang yi géeju xaqiqa bi nga xam ne moom mooy matali sa charia lu ko mooy rek ak saay kon doo mën a doo mën a matal kon ñaari maqaam yooyu daal moom la ñu woo bi maam ko muy charia ak xaqiqa muy maanaam charia ak xam yàlla pour mën a maanaam matal mbir itam. waaw euh, dogum la sax maanaam. Euh, comme hmm. comme li ñuy wax waa Kër Samba Sadio Ndaw da ngay dem ñu naan dañuy dañuy dañuy wane yàlla. ak yow wane yàlla googu maanaam noo ko déggee. yàlla dafa nekk jëmm joo xam ne nii. Hmm. da ngay ñëw ba si moom na ko yaa ngi nii. yaay yàlla am na ñoo xam ne boo gis yàlla naan man de su ma gisoon yàlla man man dootuma ñàkk dara damay ñëw li ma soxla si ab na muy muy bëgg kon gis yàlla googu yow maanaam noo ko jàngatee wane yàlla googu est-ce que nit dina gis yàlla dëgg-dëgg loolu nag euh, yàgg nay indi maanaam mi ci dina islam ci jamono yonent bi sax dañ ko doon warante ne yonent bi ndax ba mu rañaanee gis na yàlla wala gisut yàlla ba mu ñëwee am na ko ko laaj na ko yow rasulilaay ndax ba nga rañaanee gis nga yàlla mu ne leen nuurun araahu aw raaytu nuuran ma fa gisee kat ba ma demee kat gis naa fa ak leer ndax xam nga yàlla wax ci alxuraan ne allahu nuuru samaawaati wal ard man maay leeru asamaan ak suuf mu delluwaat wax moom yonent bi raaytu rabbi fi surati sabi gis naa yàlla ci jëmi maxamaane waaye nag tey ni jaam ñi tey réere mooy gis yàlla boobu noonu tey maqaama la goo xam ne kenn mënu koo xam fileeg àgguloo ci dafa mel ni lumière tey xam nga mu mënoo koo expliquer gumba da nga koy maanaam ubbi bëtam yi rek mu xool gis ko moom na Cheikh Moussa euh, ki nga xam ne mooy imaamul Xasali doon wax naan xam-xam bi lay yóbbu ci yàlla ba nga gis ko loolu zawqa lañ koy tuddee zawqa mooy le goût da nga koy mos rek mën koo xam waaye nag nekkul loo xam ne dañ la koy toog di ko expliquer waaye expérience mystique la laaj dafa am yoon boo xam ne fa ngay jaar ci jaar bi ngay jaar ci yoon boobu noonu noonu muy yoonu laa ilaha illallah di ko sikar moom mooy dem ba saf ci yow ba jeexal ak say kon sa jëmm ji jeexal sa ruug gi jeexal lépp lu fi nekk bàyyi fi kenn kese muy yàlla suñu borom moo tax am na benn borom xam-xam bu daan wax naan boo ñu laajee ci gis yàlla ñun jaaxaluñu lu ñu jaaxal mooy gis lu dul yàlla ndax lu dul yàlla nekku fi Seydina Alioune doon wax naan in xiftu ba daa in ba daa xiftu man su ma feeñee man Seydina Alioune yàlla dafay nëbbu waaye nag bu yàlla feeñee man damay nëbbu lu waral loolu mooy nit ki tey li ko muur yàlla boppam la mooy kiiraayu boppam tànka jeexut ak say kon suñu borom du fi du fi feeñ moo ngi ñu rek ngay wër dara rek fekk yaa ngi ci dëgg sa tànk fi lekk sa tànk boobu jugut ak say kon la ngay wër du mën a feeñ looloo di yàlla kon gis yàlla daal am na daal gis yàlla comme nu ko ko gars que ñi si bëri xamuñu maanaam mhm. ni gis yàlla daf leen jaaxal lool lool dëgg la ñi daw jëm di seen sëriñ ñi mhm. laaj leen ko ñi ne ñoom dañ lii dañ leen xam nga li waral mu gis mu jaaxal jaam ñu bëri lenn rek la muy imagination lañ ko jàppee ndax xel moo demee noonu bu ñu déggee yàlla rek am na ñu ko imaginer am na ñoo xam ne jàpp nañ ne benn góor gu mag la gu nekk ci kaw asamaan malaaka yi dar ko gis comme ni ñu ko waxee ci téere yi ñu bëri noonu lañ ko jàppee moom la tubaab di wax anthropo anthropomorphisme maanaam nga jël tey yàlla jox ko jëmmi doomi aadama ne loolu noonu du yàlla te lool noonu képp koo xam ne ci lool nga tënk bay jaamu suñu borom yaa ngi ci bokk yàlla te boo ci dee tàbbi naari jahannam moo ngay topp yoonu xam yàlla moo lay xamal xaqiqatan yàlla nga xam ne moom moo nekk fépp moo nekk ci lépp yàlla moo ne inna allaha maakum ayna ma kuntum maa ngi ànd ak jaam ñi fépp fuñ munti nekk delluwaat ne wallaahu xaariqul bàyyi damaa bind ba pare maanaam dugg ci biir ma di ko doxal kon gis yalla moy boy deme bay deugal ay bobu non di wax ci alquran la hawla wala quwwata illa billah niki tay bu deme ba jexal kartanam jexal pexem jexal lepp ak say kon xol bopam gis manam xamni ne dara ci mom rek keroog yalla feeñ na mooy la min jamme di jàllal tam question non euh si Seydina Ousmane Noré nii mhm. Ousmane di lay rek manam euh Kër Cheikh Moussa Cissé ñam borom daru manam ñom lan mo am lan mo indi différence ak ñom yeneen serigne yi. expliquer suñu gàtt rek c'est simple parce que mooy li ma la wax sànq rek taalibe ba muy jóg di sàkk sëriñ pour àgg ci yàlla la rek gannaaw ba nga demee te loolu noonu jëlee woo ko fa ak saa sëriñ si nag ñoom ñoo tënk taalibe yi sëriñ si ñoom ñoo tënk taalibe yi njàmme nag ak saa ba mu ñëwee def wax dafa leer laaj leen ma yàlla ma xamal leen yàlla man man Cheikh Moussa di yàlla laa di wane képp ku ma jox sa bopp te bàyyi ma sa bopp naa la yóbbu ci yàlla ba nga yëg ko bon moom di yëg ne àgg àgg nga ci yàlla waaye yooyu yëgal sa bopp ne àgg nga ci yàlla tey nag tënk gi nga xamante ne sëriñ si tënk nañ ko taalibe yi ba am na ci ñi nga xamante ne dañ lay wax ne la ñooñu de bu leen jege ñooñu ñu ngi wax ay waxi dof la ñooñu nangam ñooñu nangam ñooñu ñooñu mooy waral yow tey doo demee ci taalibe keneen sax di ko wax naan ko xam yàlla nii ak naa ak naa mu ne loolu noonu amul parce que dañ koy jëlee ñoom seen sëriñ parce que rôle bu sëriñ waroon a def diggante sëriñ ak taalibe loolu lañ matalul parce que dañuy wax ne dig sëriñ ak taalibe lenn rek moom moo ko sos taalibe bi dafa réeree yàlla sëriñ bi dafa xam yàlla taalibe bi nag ak saa ba mu ñëwee ba def li nga xamante ni mooy aslam su nafsi lillahi rabbil alamina dafa ñëw joxe boppam ngir lan joxewul boppam ngir sëriñ bi mais dafa joxe boppam ngir jëmm yàlla tax bon kooku noonu ak saa bu nekkee ne matee na ko ne la yóbbu ci yàlla ba nga yëpp comme ni ko Cheikh Moussa waxee woon différence bi nag lu ko indi lenn la rek mooy kii dafa ñëw ak saa wanewul dara lu dul yàlla nëbbu boppam ñee nag tey li leen yitteel dëgg-dëgg moom mooy poche yi xaalis bi ci poche bi rek moom moo leen yitteel xaalis bi ci poche bi moom moo leen yitteel moo tax dañoo dem ba dañoo kidnappé ak sa seen i taalibe te loolu noonu yaakaar naa sax Serigne Touba bindoon na ko mooy Serigne si nga xamante ne tey ay fil lañ dañuy këppatal seen taalibe parce que lu seen diggante ak ñoom dëgg dëgg dëgg dëgg mataluñ ko lu war seen diggante ak ñoom dëgg dëgg mataluñ ko ak sa Cheikh Moussa nag ba mu ñëwee loolu la dàq moo tax mu ne ngeer yi nga xamante ne Serigne si waafoon nañu gàcce naa lépp mooy la naxte bi dafa yàgg parce que du nekkee ne yow sëriñ askan nga ko toppee askan wi di yàgg ba nga ci sa jot du nekkee ne ñu nga ko toppee sa daraja ji tamit doo doo ci jot mais yow ndax na Cheikh Moussa Touré da koy faral di misaal mu ne mu ne du nekkee ne yaa ngi dem ci dëkk mbala yaa ngi dem ci kër yóbbu sëriñ mu ne nga dem def sa nga ne ba mu jiyaat nga ñibbiwaat mu ne sëriñ boobu noonu ñu joxaal la ko mu ne doo amee xel te yow dëgg-dëgg war nga xam ne kër gi dara nekkul fa. mooy yow ngay ñëw da nga indi julli or natt azaka añ màgg moo leen luy saratu nga xam ko ba pare nga dem jébbalu sëriñ mu ne la julliwaatal oraatal natt azaka kooku noonu da laa yëpp différence bi du dara lu dul lii la xam yàlla àgg ci yàlla ba seen waxin lépp yàlla la bañ askan leen lan yàlla yàlla ñeen nag seen bopp lañ leen xamal sama maama daf ñii sama maama daf ñii sama maama daf ñii sama maama daf ñii est-ce que yàlla ak saa loolu noonu digg na ci aljana Diop euh, di fi defoon benn émission euh, daara yi ak ak quelques étudiants yi nekk ci université waaye étudiants yi nag ñoom exception lañ si étudiants yi ndaxte ñoom euh, étudiants yàlla yàlla lañ tamit dañu pour euh, def euh, annonce bu ñu waajal journée culturelle de Cheikh Moussa Dieng moom daal xam ne dañ ko fay fàtte wax sax si déroulement émission bi boo xam ne mu ngi am fii université Cheikh Anta Diop le 13 juillet prochain incha allah d'hommage à à Moussa Bangoura defe naa tamit quelques témoignages dina si am si si si si si si jëmm jooju noonu xam ne mu ngi nekkoon fii ak. ak ak mbokk talibé yi kon dañuy laaj euh, euh, maam Cheikh Tine maanaam yow lan nga xam si Moussa Bangoura ak réellement lan moo leen boole. Euh, ñu ngi sant bu baax ci laaj bi journée boobu nga xamante moom la war a taxawal muy journée d' intégration sant Cheikh Moussa ci sa njàmme borom daaru sa yàgg koo amal ay ati at. Mhm. sa ëpp na fukki at ñu koy amal tax na ren. ki ñu ko maanaam tuddee war ko rendre hommage ndax suñu mbokk taalibe la boo xamante ni étudiant la woon nekkoon fii daaw rek mhm. saa fii la ko fekk ñuy jàngandoo doon demandoo daayira doon defandoo lépp loo xamante ni ci wàllu activité la moo xam lu jëm ci euh, àddina la wàllu njàng la ju demee noonu waaye moo xam ni tamit lépp lu jëm ci wàllu diine la ñoo ci nekkandoo woon ak saa mu xëy nag dëgmal ba tax na ñuy ñaan yàlla dolli ko ca fa mu ne yërmande ak ngërmande ñaan yàlla taas ko taas ñu ci ay barkeel ak saa te mu nekkoon koo xamante ni nag étudiant bu dëggula la woon amoon farlu lool ci lu mun a doon ndax li ñu naan saadatu daare ni ñaari kër yi muy àddina ak àllaaxira moom lépp loo xam ne doon na ko maanaam dina yëwénal ñaari kër yooyu àddina ak àllaaxira loolee def ci nekk waaw am na farlu lool ci wàllu études yi nga xamante ni moom lay def ndax bëriwaa na bëri yàlla yi ñi nga xamante ni ay yàlla yàlla leen dañuy faral di leen wax ne bëgguñu ah, maanaam seen àddina daal dañ ko wayefal maanaam lépp lu jëm ci àddina ñoom dañuy sànni teg fële maanaam mbir bi yàlla rek la ñuy wax yàlla yàlla waaye loolee day nekkul li nga xam ne mooy réalité ndax kookee suñu mbokk ci yàlla di Pa Moussa Bangoura moom ku woon ak nekkoon ku brillant ci li mu def ci wàllu njàng waaye bëggoon yàlla lool waaw ba tax na nag niñ koy faral di waxee rek ni su fekkoon dafa yem ci njàngu kese bi ak ça loolee fa mu jëm suñu mbokk ci yàlla di Pa Moussa Bangoura moom ku farlu la woon ak ça nekkoon ku brillant ci li mu doon def ci wàllu njàng waaye bëggoon yàlla lool ba tax na nag niñ koy faral di waxe rek ni su fekkon dafa yam ci njàngub kasse bi ak sa lolé fa mu jëm ak sa suñu xel du dal waye nak dafa doon dund li nga xamanteni su démé ëlëk ak sa su taxé suñu karam karam suñu borom du waaw nak ko malik waxé won ne waxtar min al ulumi ilman yanfa yawm al qisab jalla rabbil muttadia ne nga na nga sakku xam-xam bo bisu yomal khiyam yomal khisab buñ lay xisaab ak saa dana la jëriñ histoire am na njëriñ géographie am na njëriñ science économie ak mat PC lépp am na njëriñ de ci àddina waaye nag lan mooy jëriñ yawmal xiyaam kon xam-xam bi nga xamante ni moom la ñuy junj foofu ne na nga ko sàkku laataa ngay wàcc liggéey kooke di suñu Cheikh Moussa ra ak mu ngi ci woon ñu ko doon sàkk mooy xam-xam tasaw bi nga xamante ne moom la ñu jógee waxtaanee léegi mu ne xam-xam boo xam ne mooy ñongal sa àddina ñongal sa àllaaxira su yàggee sax suñu xol ak saa day gën a tooy ba tax na foofu la ñuy yamandiku ñu ngi sant bu euh, Baye Lamine bis bi yéen a ko tuddee kii bi Moussa Bangoura ma lu tax ngeen tuddee ko Moussa Bangoura waaw dañuy santaat bu baax rek alhamdulilah Baye Mamadou di wax ne daanaka sax question bi suñu mbokki talibé yi leer lañ ci lu am solo waaye li tax ñu tuddee ko ko mooy moom dafa di koo xam ne ku ràññeetlu ko la ci lii nga xam ne moom lañ bokk muy xam-xam bi nga xam ne ñun suñ ko xamee ci moom lañ ci maanaam ci moom lañ xamante nga xamee wuñ sax xamante wuñ sax université donte nag day jàng da doon jàng fii ñun tamit ñu fiy jàng waaye dañ fee daje waaye Pape Moussa Bangoura ci li fi ñu xamante mooy ci xam-xamu maarifa nga xamne dafa am benn jamono mu ñëwoon fatik am benn mbokam bo xamne mo fa amone dej ba ma ñëwee ci dej bi kérok la rañé jëm ci bobu tambalé won na sax di waxtaan ci xam-xam yi ndax moko ñoroon fu mu dem rek li Cheikh Moussa defoon ci mom moom lay tàllal fa lañ xamanté kérok mako jëlé bëre bobu yobu ko kër ga fa lañ tok di waxtaan ci maarifa fa lañ yendu kérok ba ngon jot te suñu waxtaan yépp lenn képp la won muy yalla ni nga xamanteni bi nak non lañ xamanté day yok say suné ne ñu ñëwaat université dajawaat fi nga xamné yëngum yépp yalla kessé la jëmmala jo xamné man mom bokkon na ci ñima yëm lool wax dëgg ndax ko xamné boko ñé ko rek li ñëk def moy def mooy bo jaxaso ak mom bala nga genn ak mom wala balaa ko ak mom dana la yok ci yalla ala kulli xaal mënu ton ñak mun won jaxaso ak mom ba dem ta amul lum la yok ci yalla te bés bii nag nga xam ne mooy journée d'intégration bi gis nga daaw rek mën nañ ne lépp ak saay kon ci loxoom la nekkoon daf ci defoon pas-pas bu ama ama am solo fi ñu doon dem nga xamante ne bii journée bi dafa laaj yenn yenn va et vient waaye loolu yëpp daanaka dafa jàppoon ne sax moom moom rek la waroon nga xam ne daal ñun ñëpp sax daf ñu doon soññaat ci pas-pas bi nga xamante ne bii tey moom la ñu war a am ngir jëmale mbir mi ci kanam. kon kooku ala kulli haalin bu yàlla defee li mu def muy li gën nga xam ne dëddu na li gën a néew luñ ko mën a defar mooy ñu rendre ko hommage waaw mu doon tamit ay ñaan di ñaan yàlla suñu boroom yokk leeram fu mu mënti nekk rek ndax ñu ko soxna yaa de ba waxee rek am nañ yaakaar ci moom bu wër a wër a wër a wër wër ndax yàquwut dund gu yàqu mooy ki nga xam ne dundam bëri na lool waaye nag calam ci nekkoon mooy amaana ci caaxaan rek toppaloon dëgg waaye dund moom yaatu na ci bu fekkee ne ki nga xam ne da doon dund dëgg alaakulli alin même bu fekkee sax deux ans la am dundam gudd na ndax lan dund dëgg moom alaakulli alin mooy dund ko yaatu ci yàlla gisoo ko tey bëri na góor yàlla yu bari yoo xamante ne bi amaane seen dund sax guddul ci àddina addi waaye gis nga ne maanaam tey jii liggéey lañ yàlla liggéey boo xamante ne bi day sax ci àddina nga xam ne ku ñëw rek da ko fi fekk moom nag liggéeyam maanaam dund na maanaam dund goo xam ne guddut waye japp nañ ne lim liggéeyal yalla ci kaw suuf ak say kon day sax dak ila ba motax lu neew la niñ ko defal ni muy manam tay hommage bi kon dañ koy dañ ci jaar rek diko gën di ko say su nek diko ñaanal ak say kon yalla yokku leeram fu munti nek ci daraje la ilaha illallah kon ñoo ngi sante di tënk foofu ka kàddu jël jërëjëf bu baax baax si euh, réponse yi yalla leer na di ñaan tam yalla nangu ñaan yi si barke yalla mo moo sal waaw di jàll tamit si euh, Seydina Noreyni di la laaj tamit euh, lan nga xam si jëm jooj di musa di Moussa Bangoura. bon alhamdulilah bi wax ne ci journée boobu nga xamante ni moom nañu dëgg man le 13 juillet bii ne di ñëw ñu ci rendre hommage suñu benn compte disciple ñu gënoon koy xam ci Pape Moussa Bangoura di wax ne rijal la woon wallaay la si rijal la woon ah mooy na koo góor yàlla yi waxee rek aman na ci espace bi la nga xamante mais ci yàlla kese la nga xamante woon mooy daar yi nga xamante ne Agassa am na fi ñu ci doon fréquenté. Agassa moom da nga koy xool rek mu fàttali la yàlla wallaay la si Ba Moussa da nga koy xool rek mu fàttali la yàlla ci pas-pasam ci dëggoom ci taalibeem mhm. kon kooku noonu saa xel da ciy dal bu wér a wér a te li tax ma ne xel da ciy dal mooy li nga xamante ne tey yàlla nee na du kerogee yomal xiyaam moom lay fay loolu yóbbal na ko yàlla parce que yàlla nee na inna diine inda laay al islam te islam boobu noonu wax dëgg yàlla teel na koy jaayante ba am ko te am na am na ngërëmi agasa li nga xamante ne moom mooy ñaari waa juróom am na xamante ne moom mooy sangam te moom la jaayante woon ci yàlla wax dëgg yàlla te loolu rek agasa moom mooy tey li nga xamante ni moom mooy yëwanal dundu jaam bon dañ koy ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla bu wér a mu daje ki nga xamante ni moom mooy sëriñam bu mu teeru ko bu wér muy Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru di ko ñaanal yàlla yàlla ak saa yokk ay leeram di ko ñaanal yàlla ak saa yàlla daje ak li nga moom mooy ngërmandem bu wér a wér a wér a wér di jaay Cheikh Moussa Cissé di jaay kulli rijaalu laahi wax dëgg yàlla jëmu jooju moom mooy ak saa wax rek aman na duñ ciy wax sax que yitteem ak pas pas-pasam mhm. bon taas ñu ci barkeem ndaw la woon de mais kilifa la barke lasi laa ilaaha illa allah li ñuy wax ne Cheikh Moussa de nee na sama dara du yàqu mais moom dara Cheikh Moussa la woon mhm. parce que nekk dara nag jafe na lool mhm. nekk dara Cheikh Moussa mooy ki nga xamante ne tàmbali ba wàcc ci a wér bon xamante ne moom mooy ngërmande sëriñam ba ak sa ko foofu noonu bu wér a wér a wér a wér di tubaat nag di yeesu bu baax a baax a baax Moussa Bangoura wax naa ñun ñëpp xamoon nañ ko si yàlla xam naa wax tamit loo xam ne ni wax leen ko waaye xanaa di gërëm rek mhm. di ñaan yàlla mu nangu ñaan yi yal na yàlla yokk leeram yi ak ñu nekk mhm. di ñaan yàlla tamit ñun tamit ñoo ne ñun ñoo fi des yàlla saxal ñu si si yàlla saxal ñu si musu dun goo xam maanaam du ma xawee si yokk si si barke euh, borom daaru mhm. waaw di gërëm tamit bu baax a baax a baax di di laaj tamit maanaam programme le le le le treize bi prochain euh, naka naka la tëddee programme journée d'intégration bi di euh, le 13 juillet sant Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou Kasa ci suba si dañuy def ab exposé sur la vie et de de Cheikh Moussa dañuy exposé lépp loo xamante ni maanaam aju na ci Cheikh Moussa ak njabootam ak taalibe mi ak ak Kasa lan mooy njàngaleem lan la indil ñi nga xamante ni ñooy jaamab yàlla yi ndax daan na wax ni ku yàlla bind maa sa njëriñ sa njëriñ kon njëriñ boobu képp koo xamante ni bëgg na ko maanaam lu lunjatu su bës boobaa dana ko leer su fekkee ni ak saa teew na ci exposition boobu matin bi lay doon 9h euh, jëm ba 15h ak saa bëgg nañ def bi nga xam ne mooy exposé ngoon si ñu def zikrullahi bu yaatu ci biir bâche bi nga xamante ne mooy allée centre allée euh, allée Balla Gaye gi ak ñu yaatal ko fa ba noppi nag def conférence ndax sang danañ teew maanaam cheikh yi nga xamante ni ñoo àndal ak Cheikh Moussa Cissé danañ fi teew ba noppi ñu def ay waxtaan yu am am solo def ay leeral ci ki nga xamante ni mooy Cheikh Moussa Cissé kon nag yaakaar naa loolu moom mooy programme bi nga xamante ni moom lañu tëral ci juillet bi.